wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim bokk na ci liy wane mëtu ak màggaay ak rafetaayu sharia al islaam bu barke bile mooy ne yàlla ko bi yonentam alayhi salaatu wassalaam bàyyi wu ñu wenn yiw mu mëkk walla mu ndaw lu dul xamale nañu ko wane nañ cay jotee ba pare digle jot ca bàyyiwuñu it wenn musiba wenn ay lu dul xamale nañ ko wëttandikuloo ñu ko tere ñu ko moo tax muy diine ju mat sëkk rafet lool ka ci anam yépp bokk na ci lii jeexital jommeteeg lenn ci yéeféer yi jamonoy saxaaba mooy ndekke yonentu sallallahu alayhi wa sallam xamal na saxaaba lu ne kenn ci yéeféer yi def ne salmaanul daal seen yonent bi mooy yéeme xamal na leen lu ne qad allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam kulla cheyin xatta alxiraa ba ci dem joor ba ci dem toilette sax xamal na leen teggin ya ca salmaan ne ko ajal nahaana an nastaqbila alqiblata bi gaitin aw bawl waaw ahankay xamal nañu lépp wax nañu ni sax bu ñuy dem toilette moo xam dem joor la wala tuur ndox bu ñu jublu qibla xadis jàng ci Tirmidi diine ji mbokk yi diiney set la diine ji diiney laab la moo tax ñu bëgg a ànd ak tey jàng teggin yi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko mu aju ci dem toilette ba ca njëkk mooy <clears throat> kiy dem toilette na xam ne fa mu jëm tàqalewu ko ak moo tax balaa moo dugg yonentu ne na wax bismillah hadis jàng ci tirmidi mi ngi ci ibnu majata bu waxee bi bismillahi ba pare muslu yàlla ci bépp xeetu mbon rawatina seytaane yu góor ak yu jigéen mooy mu ne audu billahi min alxubuthi walxabais wala allahuma buy duggit mu njëkkee tànku càmmoñam suy dugg buy génn mu njëkkee tànk ndeyjooram daldi wax xufraanaka dañ ci dellu bu demee ba fa muy <clears throat> demee joor bokk na ci teggin bii Seydina Salman tudd muy bañ a jublu xibla moo xam dafay saw wala dafay def ba ca des xibla bokk na ci shaa'irullah yi gën a mëg sama borom nee na nag ku màggal shaa'irullah ak xurumatillah fa innaha min taqwa alqulub fa huwa xayrun lahu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ida jalasa ahadukum ala xaajatihi fala yastaqbil alqiblata wala yastadbirha loolu nag dafay fekk mu koy defee foo xam ne dafa am choix waaye bu dee toilette yi ne ci kër yi ñu defee ko noo xam ne mënta bañ jublu wala dëddu xibla du lor kon mu defee ko nam mëne bokk na ci teggi ni mooy kiy tuur ndox ndigam góor la bu mu téyee ngóoram si ngóoram si bu mu ko téyee ndeyjooram ndax yonentu sallallahu dafa ne ida baala ahadukum fala yaxudanna dakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanafas fi l ina xadis jàng beneen bi ci teggin yi mooy bu demee ba noppi bay dëñal sobe si bu mu jëfandikoo ndeyjooram na jëfandikoo càmmoñam ngir li yonentu sallallahu alayhi wasallam wax ne ida tamassaxa ahadukum fala yatamassax bi yaminihi xadis jàng ci ndey xafsatu di soxna na sallallahu alayhi wasallam wax na ne yonentu ndey jooram la daan jëfandikoo ci lekkam ci naanam ci njàppam ci solom yéreem ci jëlam ci joxeem yonentu buy lekk ndey joor lay lekkee buy naan ndey joor lay naanee buy jàpp ndey joor lay njëkkee balaa moo raxas raxas ko soog a raxas càmmoñ buy sol yére ndey joor lay njëkk dugal buy jël ndey joor lay jëlee buy joxe ndey joor lay joxe mu ne nag wa yajcalu chimaalahu lima siwa dalik lu dul yii mu ne mu njëkkee càmmoñam maanaam lépp loo xam ne rek dafa jëm ci wàllu dindi lu sobe walla dindi sobe teggin mooy ñu defee ko càmmoñ yonentu wax na ne ida stataaba ahadukum fala yastatib fala yastatib bi yaminihi li yastanji bi shimali na tàncoo na tàncoo Eh, càmmoñam mooy na laaboo càmmoñam loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal képp koo xam ne yegg na ci di diñal sobe xadis jàng ci ibnu majata suy faj xaajoom it moo xam tuur ndox la wala ba ca des na mooy mu toog ndax moo ëpp sutura su fekkee fa mu koy defee ab àll la moo gën a mën wóolu tamit ngir saw mi bañ a dellusi ci moom walla taqal yéreem yi su fekkee ne nag yooyu amu ca mën naa tuur ndox taxaw ndax dagan na bokk na ci adab ak sunna it mu nekk foo xam ne dafay sori bëtu nit ñi fii nag buñ ne sunna jubluwuñ ca luñ sopp waaye farata la ndax sañula sañula wan awraam kumoo kumu moo tax bu fekkee ne dafa nekk ci àll te amul lu ko suturaal ci nit ñi na dema dema dem ba fu ko kenn dul gisee loolu mooy li nga xam ne moom la yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale bu fekkee it fa mu nekk mënta am fu ko nit ñi dul gisee na dem ba jege suuf soog a dindi ay yéreem ngir ne kenn du seen awraam loolu it mooy sunna si nga xam ne moom lañu ñu mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa su fekkee nag danga dugg ci sa toilette bul dindi sa yére tànk tëjuloo toilette bi ba nga xam ne kenn nëjisatut la foofu nag la ñuy gisee lislaam civilisation ni mu wuteeg soowu jant fii da ngaa gis ñu ranger les douches yoo xam ne kii dafa taxaw fii di saw kii taxaw leen di saw kii te yàlla kersa ak sutura moo tax sa ngóor si wala sa jigéen si jigéen ji mu defal la ko ci diggantey tànk ba kenn du ko gën a mën a gis jaaduwul daganut nga koy wan ñeneen ñi waxuma la ci tuur ndox waaye tey boo demee ci salle de gym yi da ngay am problème sax dem ca sangookaay ba ndax ñu toll ni seen bàyyi ngay gis ñu def yaramu neen di taxawaalu wala nga dugg ci sauna room yi nga gis koo xam ne dafay def yaramu neen ñëw dugg boo defee nga jël say bagage génn doo xam rek lana xew jëf yoo xam ne yenn ci bàyyi ma yi sax ëppal nañ ko seen bopp ndax bu ñuy jëfandikoo yooyu le ñoom ci bàyyi ma yi am na ci yu nga xam ne kenn du leen gis dañoo suturaal seen bopp defee nag ñun buñ ca bokk waaw buñ ca bokk mukk ndax yonentu sa alayhi sa sallam moo ñu jàngal ñaan yooyu ngay ñaan booy dugg nga xam ne fàtte wa sa borom booy nit nga ne ah yàlla sant naa la de bi nga ma mayee xéwal gile ba pare may ma ma digéré ko ba pare tabaarakallaahu faj ah, sama ajo loolu xéwal la bu nga xam ne ah dara dara yamul ni moom bu ko bu ko nit ki gisee waaw bu paree yi tamit na fexe ba sonnee dañal sobe ga na mu waree bu mu bàyyandiku wala muy sàggan di desal sobe ci yaramam ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ju nekk ca ibnu majata mu ne aktharu aadaabi alqabri min al bawli li ëpp ci mbugalam bàmmeel ci am saw lay jógee musuma gis lu gën a ragluwaay bàmmel sànq rek la ñu yóbbu benn euh, way kenn ci mbokk yi fii waaw waaye biñ koy biñ koy denc man li jóge ci man ba léegi dikkagut laa ilaha illa allah yal yàlla may yàlla te may ñu déegu rafet may ñu tabaarakallahu mujj gu rafet may ñu jubóog moom fii jubóog moom fële yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee li ëpp ci mbëgalum bàmmeel ci tuur ndox lay jógee yal na yàlla musal way juru mbokk moomu ak képp ku nekk ci bàmmeel ci mbëgalum bàmmeel muy suñu mbokk taahir di ku baax a baax a baax yal na ko yàlla yégati te taxawu ko seydina abdullah ibn abbas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam romb na ñaari xabru ne ah moo ne seeni borom ñu ngi leen di mbugal te mbugaleewuñ leen lu rëy de kii bu sawaan ba pare du seetlu ki ci des fa daan rambaaj xadis yaa ci Buxaari wu xadis ji mu ngi ci rambaaj mbokk yi mooy toxal wax joo xam ne boo ko toxalee mën naa yàq diggante bu dee sax dëgg la nañ ci yàlla boole musal bokk na ci teggin ak sunna yi yonent bi jàngal sallallahu alayhi mooy boo dee raxas sobe si wala aji dem joor ji wala ki faj ajoom buy raxas sobe si wala muy muy dawandiku mooy mu koy fompee lu mel ni mouchoir walla yu mel noonu wala aw doj na nekk loo xam ne dafay nekk lu tóol nekk ñett wala lu ko ëpp ba ba muy set waaye mu tóol sunna la yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne idaj idaj idaj idaj naka la ko tuddeeti ida stajmara ahadukum falyastajmir witran koo xam ne dafay dawandiku xam koo xam ne dafay fompee xeer wala fompee doj nee na na nekk lu tóol xadis jàng ci imaam ahmad bu mu jëfandikoo it yax bu mu jëfandikoo tamit dem jooru baxima yi ndax xadis ñëw na tere ko wane ne sax lekk la ci lekki eh, jinne yi jinne yi dañ koy dunde dundu jàmbur nag dundu jàmbur la tudd du dëgg bokk na ci yi nga xam ne lislaam jàngal nañ ñu ko mooy jullit bi bu mu tuur ndox wala mu dem joor ci rombuwaayu nit ñi ci seen yoon yi wala fa ñoo keroo ndax loolu daf leen di lor moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ne ittaqul ittaqul laainayni qaalu wa man laainaani moytu leen ñaari rëbbukat yi ñu ne lan lanay ñaari rëbbukat yi yaa rasulallah mu ne qaala alladi yataxalla fi tariqi nnaasi aw dillihim mooy ki nga xam ne dafay faj aajoom ci yoonu nit ñi wala ci seen kër yi xadis jàng ci abu daawud ku nekk ci toilette wala mu nekk ci fajuk aajo ju mel noonu du nuyoo du fay ku ko nuyoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere na fexe yi tamit bu mu wax ci jamono jooja ndax yonentu sallallahu alayhi wax na ci xadis ne yàlla dafa bañ loolu dafa bañ wax ci jamono ji nit ki di tuure ndox wala muy def la ca des xadis jàng ci Abu Dawud mi ngi ci Ibnu Majah xaram na it ci ku nekk ci toilette di faj aajo mu jàng alquran soo defee bu fekkee ne nag dafa yore loo xam ne turu yàlla nga ca wala alxuraan a nga ca bum ko dugal ca biir su nee ci barab boo xam ne nag ragal na ne su ko bàyyee ci biti ñàkk ko maanaa mën nañ koo sàcc mën naa sànku ñu ne na ko muur balaam koo dugal ndegam amul beneen pexe bu dul boobu kon nag léppi eh, dem joor léppi fajuk ajo teggin la nga xam ne mën naa jógee ci aada jëm ci jaamu yàlla walla sax jaamu yàlla mënu caa ñàkk ndax dañal sobe dafa bokk ci charte yi nga xam ne chartaay julli la te jullit bi dafa war a set kon dëñal sobe jaamu yàlla la azkaar ya ngay def bala ngaa dugg e, jaamu yàlla la topp teggin yi nga xam ne moom la yonentu sallallahu alayhi jàngale ngir na yonentu bee jàngale alayhi salaatu wasalaam jàngale la dem joor dañ cey laabu wala ñu dawandiku ca ibnu ashir nee bu dee dem joor yu tasaaroo ba mu ëpp nag kenn mënut caa dawandiku rek fokk ñu raxas ko wa jaaza listijmaaru min bawli dakar ka gaitin laa ma kathiran intashar sawam góor mu ne mu mel ni kon mu ngi lay sawam jigéen mën nañ caa eh, tabaarakallahu dawandiku listijmaaru mooy dawandiku listin jaaw mooy tàncu tàncu mooy laabu dawandiku mooy xeer wala mouchoir wala yu mel noonu ajaa Bint Diop sama mbokk sama xarit fële ca Rhode Island moo may wax ne sa wolof yi de moom ci laay am problème ba ne ko moo ne de dégguma wolof damay jéem rek bu ko defee saw eh, dem joor yëpp dañ caa war a def loolu bu dee nag ngelawal la borom xam-xam yi wane nañ ne dara warul ci ci wàllu laa boog tàncu borom xam-xam yi nag sette bu fekkee dafa am luy yol lu ànd ak ngelawal wala sobe su tal su ànd ak moom ñu ne boobaa a ah, nañ ko dindi nañ ko dindi ci tànc wala ñu dindi ko ci dawandiku ñu bañ a guddal